naye ko wax sànq nga ne Eumeu seen ak tafaatin Tapha buy neex la mais bu ko jiitu muy Ama Baldé ak ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo coow li bari na si si diggante Ama Baldé ak Modou ak seeni jege ñaale lan mooy tax combat di toll foofu noonu. waaw parce que ay supporters kenn ku nekk ñaari mbër yoo xamante ne wax dëgg yàlla ay ndaanaan lañ ay champion lañ ñu bëri supporter loolu nag moo tax làmb ji mun a bañ ñàkk am tension c'est normal mais tension bi surtout li may wax rek mooy communication na nay rafet rek waaw nay rafet rek kenn teewu laa wax nag da nga wax sa mbër ni nga ko bëggee ak nu mu mel na ngeen yem foofu dépassement ba ñu am ci diggante ñaari mbër kon adversaire bi ni muy joxee cër moromam adversaire benn bu yokk aussi tamit ci diggante supporter ak supporter nañ joxante cër rek mais làmb ji moom coow mënut a ñax a ñàkk waaw. tension boobu ciy jublu. jaay combat bi wala jéem napp sa adversaire. non combat moom jaay na boppam. Mm-hmm. waaw combat bi jaay na boppam bu yàgg. mais tension moom mënut a ñàkk moom. Mm-hmm. ñaari mbër gëm kenn mën na cee jël fitu morom. non loolu ah, na mbër yoo xam ne ñu tiit mais ñoom est-ce que ñoom xam nga ñaari mbër yooyu xamuñu du ñu amuñ tiitukaay. ah Ama Baldé ku bëreeg Géant de Tapha Tine kii bëreeg Modou Lo ci boppam. bëreeg ji xool ñaari gens yooyu dañoo am tiitukaay tiit amul ci làmb ëppante fi nag am na mais tiit moom duñ ko def waaw. non mënuñoo tiit ay mukk jegewuñ ko sax làmb mbër buy bëri amul ragal ra nee naa la ëppante fit mën na mais ragal moom mbër buy bëri amu ko mais nag ëppante fit nag ci loolu yàlla moo koy def ni kii gàttee kii njool. noonu la kii xees kii ñuul. Modou Ama ko fit. non loolu da nga leen koy laaj ñoom ñaar. non xam. non man xaw ma xam nga man tey xam naa Ama Balde. Modou nga gën a xam Modou bëri na ak moom. waaw ñaar Ama Balde xam naa ko baax ci fitam ci jàmbaaram du ragal. loolu moom ma wax ko ma ñàkk ko sax wax bu yàqu la ma. Ah, Modou tamit c'est la même ma wax ko ñàkk wax wax bu yàqu la rek. waaw da nga leen laaj après ñoom ñaar kan moo fit waaye xam naa ne jege ragal moom wax bu ko sa wax. jegewuñ sax non luy loolu. <laughs> <laughs> mais seen runkum daje dina gën a. waaw waaw dina neex nag amateurs yi amateurs yi soxla nañ ko de waaw amateurs yi soxla nañ ko te combat boobu ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla na am ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam. mais boobu lan nga ci gën a séntu Babacar combat boobu yow yow soo ne en tant que amateur lan nga ci gën a bëgg xeex bi xeex bu sax dem ardo ñëwaat. wala xeex moom xeex sax moom. Hmm? ah xeex mënu sax. comment boobu. xeex bi munul sax. dinam am ko bëgg nag waaye moom du ko bëgg. waaw ah. dina am ku mu arrangé dina am ku mu arrangé wu. ay waxam boog de xeex bu sax ci làmb. amul làmb lu nekkul nekkul nekkul nekkul box. ah ñun xeex bala sax de xeex nga fi ay xeexu sax. non bokkul départ ci adversaire bi ni ngay bëri rek. mais koo xam ne day ñëw Ama day ñëw day dóor song wala dóor jàpp. Hmm. Mooru day dóor song wala day dóor di xaar loolu rek moo fa am. kon léegi nag moom kii day wute daan kii wute daan tey làmb day toll foo xamante ne yow daan rek moo lay arrangé c'est-à-dire que ñoom ñaan ñëpp daan moo leen arrangé donc du fa nekk naan day li ma jàpp man du ma fa nekk naan dañ fay xeex xeex bu sax. ndax dóor mu daal mën na am ci combat boobu. mu daal mën na am kay. tout est possible. benn song mën na koo jeexal. benn song mën na koo jeexal yaakaaruma ko yaakaaruma ko teg yàlla yaakaaruma benn song ay wax na ñaari mbir yoo xam ne nii kay yu jar a bàyyi xel la parce que ñaar yi mu dégg mu jëkk am na bu jëkk bi nee na am na combat bi ku xeex arrangé mais am na ku bëre bi gën a arrangé mari ko laaj nag ci ban côté la féete Pikine la xeex arrangé wala parcelle la xeex arrangé wala Pikine la bëre bi ak xeex bi ku mu gën a arrangé ñoom ñaan ñëpp mbër yi mën a bëri lañ waaw man benn jour ma toog ma Ama Baldé peut-être xelam wala xalaatam àggul ci yenn niveau yu bëree quoi. Hmm. Ah, parce que xam nga nit balaa nga xam na mooy da ngeen laalante. mais ba ñu bëree laa xam ne kii nekk te ndaanaan la. contact waaw contact bu neex. mais li ma ko yaakaaroon sax ak moom affaire daf ma daf ma daf ma dépassé quoi. Hmm. pour man xelam wala niveau àggul foofu. àggul ci bëre waaw ah, ci bëre. tax mën na bëre lool lool lool loolu moom dama la koy wax. Modou hmm. mën na bëre Ama mun na bëre. ku ci yaakaar ne kii song nii wala nangam wala bërëb agul foofu mhm. yaa ngi naa sa bopp. kon yow da jàpp ne bëre Ama dépassé na fi ku nit ñi xalaate man yow mi bëree ak moom. man mi mën a bëre ba ñëpp naa ma yaa dàq bëre. waaw man Ama contact naa moom lima ma foogoon ne amu ko am na ko. ci bëre ci loolu moom xam naa ko. Hmm? mais toute façon daal làmb ji ñaari mbëri bu ñu jàppantee bëri sax di nga xam ne ñii dañoo mën a bëre. Hmm. bu ñu xeexee tamit di nga xam ne ñii dañoo mën a xeex. ndax kii boroom jom la kii xeexkat la ñoom ñaar ñëpp seen bëri dafa xaw a méngoo. ñoom ñaar waaw moo tax léeg-léeg yi ñu ngi naan méngoowul mais méngoo na. Hmm, lu tax kii day wute dóor ndax du ragal du arrière. moo ciy kii wute dóor ñoom ñaar ñëpp. muy ama day wute dóor te bu dóoree day attaqué. waaw mooru day wute dóor te bu dóoree day attaqué day xool fu muy dóor. amul différence moo tax la bu ñu bu ñu xeexee dina neex. Mhm. bu ñu bëree dina neex mais Ama yàlla na ko yàlla may ndam. Ah, ngay wax tey de daa mel ni kon. ah non mais. voilà man man nga mës a wax sax. waaw loolu laa mës dëgg yàlla. Ah. man moom mosuma man man ciment laa benn yoon laay tooy. Ah, yàlla na ko yàlla may ndam. Mhm. ci barke yonent bi sallallahu dal na ci Ama. Ama dégg ay doon keer ay doon keer. ci Ama. waaw non non. keerul dara. non non ay doon keer rek. boo demee nga laaj hmm? ko I don't care. I don't care. dafa def signature. ñu bari ni physiquement dafa des. bari bari loolu ñu wax. ñu bari na bari na ñu koy wax léegi kay dañu bañ a tudd tur sax léegi comme boo tuddee tur léegi ñu attaqué la kay am na benn waay bu ma gis fii neen daam ko wër nee na ñëw nañ fii démb waaw waaw waaw léeg-léeg ba ci ba ci ku def na wax xalaatam souvent mbër yi da ngay gis léegi nit su génnee def sorti moo xam ancien gloire nga moo xam reporter nga moo xam journaliste de métier nga moo xam moo xam ku mënti doon boo defee sorti wax sa gis-gis ñi gën a jege mbër bi dañ lay attaqué parfois nga dégg ci ay saaga est-ce que noonu la war a demee. non saaga moom moo dul yooyu saaga du respect du respect nit da nga koy jox cër respect c'est propre aussi vraiment parce que tey sa doom bi nga jur sax da ko a jox respecté ko waxuma laa nag jàmbur koo xam ne joxoo ko mu lay joxoo ko mu nekk nit kon yow dund ba tey ngeen xamante ci écran wala ci ay micro danga ko war a ko mais aussi tamit mooy li may wax nit ku nekk nangul ko lu mu wax bàyyi ko gis-gisam la wax bàyyi leen ko gis-gisam li mu xalaat amul c'est-à-dire que la rek parce que mbër mënu gëm ne mbër dafay am lekk commencé par toog bañ a entraîné loolu mënul nekk ay million nan lay fay nit ay millions am ay supporters ah am ñu topp ci ginnaawam am ñu koy ñaanal am ay noon am ay soppe waa sa waay dafa am loo xamante ne boo peut-être mën na nekk sax mal communication wala mu juum ci communique bi nit ku da koy nangul mooy nee naa ku nekk léeg-léeg day def erreur ci àddunaam àddunaam moo demee noonu mais bu mu tax nga saako wala bu mu tax nga wax lu ñaaw xelam la moo demee noonu bàyyi ko xelam. mais yow leer na leer yow yow mi koy tontu sax xam nga ne loolu amul Ama pare na wala parewul loolu wax bu yàqu la Moodu pare na wala parewul wax ju yàqu la loolu la rek ah. est-ce que nekkul intention bi moom jàppul ni Moodu daa gën a pare rek. waaw mooy li ma la wax nag moom gis-gisam la wax am na gis-gis boo xamante ne Ama moo gën a pare am na ñoom ne Ama pare na bu yàgg am na ñeneen ne moo gën a pare mais tout façon ñaari mbëri ñoom xamante nañ seen biir. mbër ak moroom mbërëm xam nañ bu gën a pare ak bu gën a pare moom mi ko wax ak Modou Lo nee na moo gën a pare ama yëg-yëgam la wax ak gis-gisam waaw xam nga moom yëg-yëgam la ak gis-gisam ama lan la la tontu. maa ëpp ku ku waaw ku man ku dàq xeex ku dàq. ku dàq xeex ku dàq bëri yàlla na ko yàlla may ndax. donc xam nga kon ku wóolu loolu boppam doo ko wax. je pense que ne ñoom ñaar ay mbër lañu ay champion lañu loo ciy wax rek na rafet. loo ci aussi tamit communiqué nga na ne ñaari mbëri bëri supporter la yoo xamante ne yàlla jagleel na leen moo tax yàlla na yàlla defal jàmm Ama Baldé yàlla may ko ndam. Eumeu Sène Tapha Tine le 12 novembre. ak ngi xeex moom it. ak Tay Shinger. waaw waaw <laughs> ah, combat bu neex la nag combat bu neex neex combat bu bi gars yi yaakaarul ne day yomb mais du yomb de. day yomb de. gis naa ñaari mbër yëpp du yomb de. lu combat bu ñu respecté la mus ñoo bëre benn. benn mus ñoo bëre amateur yi bëgg nañu xool Eumeu Sène ak Tapha Tine mbër la boo xamante ne kenn mënu koo canaliser ci ay poids lourd loolu moom dama bëgg ñi ñi xam ko. waaw kenn mënu koo canaliser ci poids lourd Eumeu Sène ba ci lay gën a rey boppam sax. Mhm. ci liggéey bu muy def. xam nga nit àdduna léeg ngay gëstu nit di gëstu nit. monsieur xam nga kam moo ko kam moom kan lay négliger tuuti na ak nu mu toll yooyu ah moom dooy négliger yooyu moo tax boo seetee combat Modou Lo toujours da ci am trompé mm-hmm. yu koy yu koy yu koy ay défaut quoi waaw mais ponkal am doole moom daa ñeme loolu dafa ñeme ponkal et puis dafa bëgg kuy bërëg moom dafa bëgg di bërëg kuy ponkal day wane boppam mais Tapha Tine aussi tamit c'est la même chose champion la jàpp na ne képp ku taxaw ci kanam moo la mën wala moo la dàq bëre te guddi yi mu toll ni kon ni ko gars yi di waxee jàpp na rek moom ku mu dóor moom làmb ji war naa jeex donc làmb la boo xamante ne wax dëgg yàlla Tapha Tine telewul bari lépp looy xalaat ci bëre mu ngi ci moom moo tax ma ne la combat bu combat bu neex la na rek. ndax Tapha war na bàyyi Eumeu Sène diriger ko. Tapha Tine war na bàyyi Eumeu Sène diriger combat bi Eumeu du diriger combat bi. déedéet. loolu waru ko. non non Eumeu Sène diriger combat bi. waru mu xaw ma war na xaw ma ko mais du ko diriger loolu moom maa la wax loolu. Ah. waaw. bu ko diriger wul ndax musiba seetaanal combat yëpp ñi nga xamante ne dañoo ponkal wala nangam da ngay seetaan combat yooyu da lay bàyyi combat mais bëgguma bëgguma di wax yëf jàmbur. mais daal bi mooy <laughs> problème bi mooy. Ah. loolu man man man personnellement loo mu wax ci làmb dama koy gëm dama koy wax chaque jour am na ñeneen tamit ñoo xam ne dañ koy wax da ngay bëre daan toog ci plateau avant ñu la woon combat nga ne nii ak nii ak nii ak nii ak nii laa def ba daan ba daan combat bi. xam nga loolu yombul. Mm-hmm. moo tax ba mu waxee ci beneen combat. dama koy gëm ndax bëre nga ak Eumeu Sène. Mm-hmm. bëre nga ak Tapha Tine. Mm-hmm. ko revanche ndax mu ko defoon ba léegi. <laughs> Tapha waaw moom ma bëgg nga décortiquer ma. ma décortiquer naa nga war a am. en tout cas ñoom ñaar Tapha Tine sax kaa ma xamal la song bu ñu yaakaar wala tey daw diriger combat bi nit ñi li ñu yaakaar day taxaw xaar déglu Eumeu mm-hmm. daal bi sëf taxaw rek mu dem yoonam de dina ko déglu de dina ko jox cër. dina déglu dina ko jox cër ndax làmb ji dafa bëri calcul. làmb daa bëri calcul de bu loxo jógee mun naa ñëw. bu hmm. bi mën naa ñëw. mais junj rek junj la rek. waaw junj la rek li may wax nag après ñoom xam-xam dinañ ko eggale bu loxo jógee mun naa ñëw bu xàcc jógee loxo mën naa ñëw te song bu ñëwee dugg génn mën na ñëw. sol naax mën naa am. yooyu yëpp mën naa am. <laughs> mais laa ma jàpp tànk diis mënu ci am. mën naa am possible mën naa jàpp tànk jàpp tànk mën na ci am ceinture ndigg mën na ci am. ceinture. waaw maa daw ràcc sax génnaat saako yi ñëwaat am na. wër na sax mën naam am mais. nga seetlu combat bi. <laughs> non damay wax neex parce que làmb njool ak ndaam loolu rek moo ci am. Mm-hmm. xàcc ma ñëw nga. dóor ma agsi sa kaw fàqet mm-hmm. seetaan ngeen ko non bëgguma di wax yëfu jàmm mais non non non te c'est-à-dire que Eumeu Sène champion la Tapha Tine champion la ah boo leen seetaanee combat Eumeu Sène seetaan combat Tapha Tine combat bu neex la parce que li wax nii rek dafa parce que la Lamine di wax nii. nga ci benn côté Tapha Tine bëri nga ak moom yaa ngi dégg ci bëri nga ko daane donte ubbee ngeen xeex yaa ngi dégg moom tafaatin tamit daan na ay champion yoo xam ne ci bëree pire la leen daane parce que Tapha Tine yaakaar naa ne yow boo nee mën naa bëree nit ñi mën nañ koo gëm parce que da ngeen na bëri mbapat bëri arène Eumeu Sène boo nee mën naa bëree des na ko gëm ndax bëri ngeen ba arène na ñaari yoon yaa ngi dégg te ñu bare bare bari eh, jàpp nañ ne Tapha xeex mais Tapha boo xoolee yenn komba mi ci ginnaaw bëri ba daa bëri lam ca bëri fañ ko yegg mu bëre daan dafa bëri Eumeu seen li nga wax ci moom ponkal des fois buy bëreeg ñoom dama naan sax ci lay gën a nekk à moo tax say wax nii dañ koy maanaam wax ju jar a tee la. waaw moo tax ma wax moo tax làmb ji moom làmb ji neex lay doon de ni ma la ko analysé daal yàppal na moom làmb jooju na tax génn saako ñëwaat. mais man a bëreeg tafaatin googu. Hmm? parce que Tafa des fois dañ koy jox xeex xeex xeex mais Tafa est-ce que du euh, bëri tamit mënu ci lu bari Balla. non Tafa mbapat na aussi ñun suñu génération ñëpp mbapat la. waaw waaw. ñun suñu génération mbapat lañu bu baax a baax. dañ daan daje defante nañ Assane Diouf. parcelle mhm. ah ñaari tali fas Mbao jàmm gën mhm. Sicap Mbao man foofu yëpp bëri naa fa mhm. donc euh, boo seetee Modou Lo ñoo doon bokk mbabat ay ñoom métrage ay ñoom dolf boobu waaw xam nga ñun ñëpp ñun ñëpp suñu génération bi mbapat lañ ay ay Lac de Guiers xam ay Tapha Tine maam ñëpp bokk nañ mbapat waaw waaw maam nga njëkk a bëreel ci grand combat defe naa waaw moom grand combat ah, bool bool teg ko waaw nga xam ne. Tafa moom Mbapat moom def na ko moom. bërikat la daal Tafa. waaw ah, bërikat la. Hmm. bërikat la Mbapat def na ko. Hmm. waaw xam nga ñun génération bu ñu fekkee mën nañ ko wax parce que ñoo bëri doo gis naa leen nii donc daal en tout cas combat bu neex la. parce que Tafa ci waxam moog Eumeu Sène boo leen di dégg dafa mel ni ñoom ñaar dañoo nam ma bëree parce que dañu dañu mel ni ay adversaires yu bëggante. voilà euh, te itam gis naa ñu ku ci ne di saddu lu méttee méttee méttee mais dafa mel ni dañoo am amuru yàgg bëgg bëgg bëri ñoom ñaar. ah ñoo c'est normal parce que làmb la boo xamante ñoom mosuñoo daje. Mm-hmm. te ñaari mbër yoo xam mosuñoo daje bu ñu dajee combat bu day neex. te Eumeu Sène bëggoon na bëri ak Tapha Tine Tapha Tine bëgg na bëri ak Eumeu mm-hmm. donc moo tax seen combat dina neex. Mm-hmm. waaw baa ñu yemale ko foofu rek baa yoon. Tapha loo koy moytuloo. dara. Eumeu Sène dara. Mm. Ah. balaa làmb ji ñu waxtaanaat. waaw mën a nekk incha allah. waaw tëgg de yéen a organiser bi. waaw bu leen neexee. ñu waxtaanaat si de mais kontaan nañ. mais Leeru mi euh, temps yi gars yi dóor nañ koy xeer de. dóor nañ xeer. yi mbuur yëfale. Eh. waa axlu bi. Euh, birig. dañoo faa liiru rek. Ah. Ah. ñoom ñoom liiru moo leen daaneel. axlu birig waaw axlu birig maa ngi leen di bëgg ba ak gaaka maa ngi lay bëggee sama sama boy ah. ah moom mooy son excellence baba baba mooy suñu mooy excellence boo waxee excellence c'était le combat des des gladiateurs moom mu wane fula ak fayda man ma wane fula ak fayda bi tafaaxum li suuf ba jóg dina barke sëñ Bamba combat entre Tapha et Bombardier a été l'un des plus intenses et des plus violents de l'histoire de la lutte sénégalaise.